Cheikh Fatma euh, Diop euh, analyste financier bu programme euh, Proma Leader Cheikh Fatma ñu ngi lay nuyu merci ci sa teewaay tey ci yeewu leen bi bu yàggul rek waxtaan nañu ci Proma Leader ak projet yi nga xamante ni fi mu tàll tembe xale yu bëri mën nañ cee profito mais est que mën nga ñëwaat tuuti ci présentation wu Proma Leader pour ñi ko xamul musuñu ko dégg peut-être ñu gën ko mën a comprendre. tout à fait Pape maa ngi lay gërëm di la remercier ci invitation bi di nuyu say collaborateurs yi nekk

Euh, pour que entrepreneur sénégalais yooyu mun jël euh, connaissance ak expertise anglais yi ak chinois yi parce que li ñu bëgg mooy promouvoir entrepreneuriat comme ni ko suñu directeur de programme waxee woon 6 octobre xam nañ ne entrepreneuriat mu mën a jëmale réew mi kanam et puis mu a créer li ñuy wax croissance endogène croissance endogène mooy réew mi fi mu toll tey war nañu ay champions nationaux de sorte que 7 pour cent de croissance yooyu ñuy wax bu ñu fa yeggee mu croissance boo xam ne sénégalais ñoo koy créer a am impact réew mi des ci réew mi sénégalais yëpp gis ci seen bopp foo leen toll actuellement ci euh, recueil de projet yi ak est-ce que commencé ngeen tànn ci nga xamante ne moom ngeen jotagum. actuellement ñu ngi euh, compiler projet yi octobre ba décembre comme ni ma ko waxee sànq ñu ngi commencé financer à partir de janvier. Mm-hmm. parce que dañu bëgg dix projets yi ñu tànn chaque mois à partir de janvier nekk de bons projets en termes de rentabilité financière impact socio-économique. Mm-hmm. alors projet yi secteur économique yëpp la euh, deux critères essentiels la mooy rentabilité financière maanaam ku ñu financé sa bénéfice mën a yokk ba yow doo jox sa bopp liggéey mais di nga jox liggéey autour de toi. Mhm. et puis mu am un impact socio-économique à que autour de toi nit ñi dinañ ci bénéficier wu. créer mhm. benn effet de masse nationale. Mhm. te mën wax ni depuis ñu commencé mois prochain am na engouement bu rëy. am nañu aussi benn diversité également de financement pour dérouler seen BFR besoin de financement mm-hmm. am ñoo xam aussi jege nañ 40 ans mais peut-être mosuñu xam luy entrepreneuriat mm-hmm. bëgg bokk ci programme donc am diversité géographique ak diversité en termes de ñuy bokk euh, programme bi mm-hmm. vas-y Charles projet bi man lu ma bëggoon wax est que am ngeen euh, ay euh, Euh, ambition wala am ngeen projet wu sax baal leen ma répétition bi pour yokk financement yi parce que man euh, c' vrai que subvention la kenn du ko delloo c' vraiment un projet louable parce que ñi ko def. c' est intéressant lebal la ko fayaat loolu moom neex na nga dimbali keneen. nga dimbali keneen c' est fallait le faire maintenant man damay xalaat par rapport aussi pour bind euh, projet yi parce que 500000 ak 1 million est ce que comme ni a démarrer aussi ce un peu difficile avec un million nga mën a def dara vous allez vous retrouver ak nit yu bëri yoo xamante ni commerce lañ koy dugal plutôt que ay projet de kii est-ce que ak seen partenaires yi ngeen liggéeyal y une politique de suivi du projet ak de renforcement de capacité dans les années à venir mm-hmm. c'est une excellente question remplie de mille questions ce que je veux dire d'abord c'est que parrainage bi Pape di mm-hmm. ce n'est pas qu'un parrainage financier lancement bi actuellement dañu nekk première itération maanaam ñu ngi doog a tàmbali mm-hmm. te boo xoolee ñi ñuy woo ñëpp dañu naan ah 500000 yi kat xaw na bëri mm-hmm. parce que fi leen di jëlee la moo tax mm-hmm. xam nga ko jëlee zéro fonds yóbbu ko ba 500000 évolution la ah oui donc ah boo nekkee deuxième troisième itération ak partenariat yi ñuy démarché dañ dem au delà du million dem ay 4 5 millions yaa ngi doon wax aussi projet yi nga xam ni c'est souvent autour du commerce am nañu ay projets innovants tout à l'heure reportage Femme Thioune bi c'était sur les sachets sachets plastiques am na projet yu bëri yu ñu jot yoo xam ni c'est sur ça ñoo xam ne dañu bëgg créer ay sachets en papier machines yi financement moo koy doxal mhm. projet yu noonu ñëw na nga xam innovation la majeure mhm. donc vraiment moyen long terme ñi nga bëgg dem vers des perspectives très intéressantes aussi bien en termes de financement ticket yi jugee 1 million dem mais aussi de projets jugee 10 dem au-delà de 10 parce que loolu ñu commencé tàmbali actuellement di financer ay jeunes pour lépp lu nga ne moo jëm ci environnement bi ñu koy gën a soqali mais savent pas comment euh, teg idée bi. ba ba ba vraiment bind ko mu professionnel. yéen est-ce que di ngeen leen aider pour ñu. <laughs> ma ni sama waa ji moo ti gaaw a gide la. jaaral je pense que c'est une bonne question. voilà est-ce que di ngeen leen euh, euh, euh, projet bi nit ku ñëw ak idée am rek par exemple. naka ngeen defal de programme man may diriger équipe analyse financière donc ñi nga xam ni dañu ñëw amuñu tableau financier wala ñoom amuñu bon projet dinañ leen ngeen nii ak projet parce que dañu bëgg assurer un critère de transparence mais nag dina leen teg ci yoon bi nga xam nu ñuy bindee projet mm-hmm. et puis derrière même artiste des na pour nga doxal sa activité entrepreneuriale mhm. dañ lay yóbbu ci ay centre d' accompagnement yu ñu ak IAM ISEC Subdeco ak AFI mhm. pour que nga mën a affiner sa compétence mën a xam entrepreneuriat ni muy demee mhm. boo fa jógee au bout de deux mois mën a doxal sa sa activité intéressant par rapport ak euh, li parce que souvent boo waxee projet yu mel nii nit ñi boo leen joxee xaalis jënd ak njaay alors que y a des projets qui sont là par exemple comme le, comme le micro jardinage yoo par exemple boo leen ci orienté dinañ ñëw indi donc les nouveaux métiers par exemple est-ce que leen pour ñu mën a concentré wu parce que également mm-hmm. euh, fi ñu toll ci àddina bi bul Sénégal également euh, essayer d'exporter et de vendre euh, leurs produits mais tout à fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que projet projets yoo xam ne mën na créer un ou deux emplois mais ay projets innovants la ñu bëgg tout à l'heure sachet en papier yi ñooñu certainement dinañ am chance ñu financer leen mm-hmm. énergie renouvelable aussi jot nañ ci ay dossiers yu bëri donc ñooñu lay gën a privilégié ak emploi yu bees yi ngay wax nii comme ça non seulement dinañ mën jox seen bopp emploi mais dinañ créer d'autres emplois parce que généralement day nekk ne dafay je voudrais savoir sur son projet déposé ñaata ñoo ci am chance ñu dina la jël leen jàpp leen ba ñu réussir li nga xamante ne moom mooy projet bi financer leen. ba sur comme combien. ma comme j'ai dit tout à finance 10 projets chaque mois à partir de janvier loolu mooy première itération bi mm. parce que ñu ngi doog a tàmbali il faut que ñu mm-hmm. teste terrain bi tuuti xool ce que et vous recevez combien par mois actuellement nous sommes en train de recevoir beaucoup de projets mais dañuy décembre mën a def compilation bi xam ñaata mm-hmm. mais ne vous inquiétez pas sur le moyen long terme duñu yem ci 10 dañ dem vers plus de projets mm-hmm. parce que gis nañ engouement national bu am autour de du programme gis nañ ni cetera donc sur yi ñuy financé dinañ dem vraiment vers des perspectives beaucoup plus intéressantes euh, euh, bëgg a déposer seen ay projet lu ñu mën a def ak fu ñu mën a dem voilà tout à fait en termes de contact am na trois numéros yu may joxe euh, benn bi Tigo la c'est le 76 263 03 27 numéro expresso bi c'est le 70 940 36 96 numéro Orange bi c'est le 77 208 17 33. Il y a aussi un numéro de téléphone fixe, c'est ñi ngi nekk cité Socabek Foire le numéro 5 c'est-à-dire bu bees bi mm. suñu bureau ak LONASE bees bi ñoo takkaloo donc képp ku fa ñëw projet mën nañ la orienter aussi pour nga bind d'accord incha allah on en ci ñuy njëkk financé ci ngeen di bokk. am na ñu commencé ba pare da leen di gunge rek. ñu gën a TFM leen di beral loxo ko incha allah. merci Cheikh Fatma ñu ngi lay gërëm bu baax. analyste financier du programme Proma euh, Leader merci d'être passé nous voir euh, ba waxtaan ak ñun ci euh, projet yooyu nga xamante ni ñu ngi wax ñëpp ñu dem pour ñu bokk ci 9h39.